R&B, old school, old school. As usual, it's from your boy Tara K. Goes to Latin 100% live, Vibe Radio 100.3 FM, www.vibradio.cn pour ceux qui n'y pas étranger Merci de nous rester sur la bonne vibe, les bonnes choses dans l'instant. Donc, euh, Mr. Good Vibe, Mr. Good Vibe, Mr. Flexo, that's what's up. Une très belle euh, chanson, un très beau morceau. Un single euh, qui tourne déjà donc sur plusieurs plateformes, dont ici même donc Vibe Radio, toujours premier dans les hits, n'est-ce pas Donc Demna, Mr. Flexo, that's what's up. City Tala, la prod, that's what's up. la musique, les gars lourds. <laughs> Oh, that's what's up. Voilà, donc euh, on continue le job hein, en mode Corona. Ni en ni gars, hein, doucement, doucement. Ah bani euh, banya, invité, euh, Krumba ak avec bi quoi. Wani, wani, invité la pour voir quoi. Wani gars, mais Wani invité, mais bon y il a le barneau, peut-être que la semaine prochaine Inch'Allah, il y a une année. ne pas oublier donc de des de nga de te mooy gel hydroalcoolique des sols masqués masque ah, donc d'éviter de mettre dajalo that's what's il nous vient de Ngaï Mekhe Mr Tough Connection Tough Tough Connection from Guy. that's what's up bismillah yee salaam salaam di ziar ñëpp euh, di béggee ñëpp ah ok Vibe Radio ak euh, Taarak sow leer ok noonu lay demee euh, Teuf Connection si Vibe Radio. am na solo keroog bu ma bu ma demee ngaay bu ma teru si. dama yegg si rek gars yi ñu da nga am émission xam nga ñu woo la nga jël leen nga jël ñu directement xam nga hmm. mu nekk lu nice. Hmm. moo tax bi nga ñëwee man la yow yaa ngi temps da ngay sama émission. Hmm. ñu yëngal. wala boog. ok non lay demee. parce que dañu waxtaan. <laughs> Euh, ci biir xamante bi euh, nga ni waa ngaay nga. waaw ak bon ma ni. Euh, sama laa waaw ma ni ma ni sama mbokk nga. tamit occasion moo présenté wu. Mm-hmm. ma ni tamit comme que maa ngi def émission hip hop foofu noonu. Mm-hmm. nga ñëw sama émission ñu yaatal. Mm-hmm. waxtaan ak jeunesse bi ok non lay demee. am na solo am na solo bon sauf que bi man bi bële pas rabu ma mais yow bi pas da ngay rab. wala boog. ñu ko bi muy jigul góor. pauvreté This is Five Metal Talrec Show. Show. Yeah. ay ca ñu liggéey yàgg weeti xaar te mooy wax xalaatam doon gasoom alu wax maadu waxi dof réew mi loof dëkkee tolof tolof gis gis yi utee ba ku nekk néega jël sa morom ray ko dagga tey àdduna lu dox ñii dëkkee xoox yaay du doom talu yar doom ngi moom ngir xaalis ñàkk jigul góor ñàkk jigul góor gore ba dee gore ba dee donte den may ree boo toogee teguloo togguloo njaboot bu sew di jooy woy yaay woy baay woy yaay woy baay ñàkk jigul góor ñàkk jigul góor gore ba dee sama na de football man Basim ya du da Na ko di bu ko na ko di bu ko di bu ko Na ko di bu ko na ko di bu ko di bu ko Na ko di bu ko na ko di bu ko Na du tak ma sa di bu da niiru ñàkk jolli na na xiif ak rafle màbb na këru ya sàgg sagum ña tane sellukaay bi moo ñu ëlëm ñu ñu ànd gëlëm ndaw njàngatu gël di jënd ka jaay daw nanu bul dof xof yow di da nga bàyyi am jënd ko drogue wala nga ko sàngara da nga war di xoslu boloog sa ñàq dajaloo sa bit boss, mën doon flows mën a doon alalu ëllëg xos lu maan li la sant mooy nga jox kese nugul maan sama àdduna du kaar waaye nga xotti ma yàlla boo neel maa leen war a sam dina fexe ba duñu xiif duñu xaafle dina def lu ma mën ba seen yaa du jaaxle ñàkk jigul góor ñàkk jigul góor ñàkk jigul góor ñàkk jigul góor ñàkk jigul góor ñàkk jigul góor mais du tax ma sàcc du tax ma fen bàyyi mag sama ngoor

Products dans Faut que ça cesse. prévention, bien prévenir, guérir. Vigilance, prudence, y'a trop d'accidents sur la route. Maintenant, il faut que ça cesse tali Moi, indi bobu alibi. ci biir dëkk bi ñaata nit ñoo si doon ay njëriñ seetu ñaan njaay bokk lim lii de tis na demete na yenn ñàkk faru am xoli ak xeli ñoo feebar war def lu bar yeex kon la ak connection Sans ay kàddu fagru mo gën faju so forcé looy mel ku nekk formule 1 bam jar ngay def excès de vitesse am neexaay talibi la moo luy yóbbee bii di ab ndongo bu doo dem daara te xamagul dara ci biir لا يرفد الخلية تاليبي تاليبي تاليبي خد الخلية خد من يرفد الخلية من يرفد talibi talibi xatal xali boo ko fàtte lii duma ko fàtte boo yemes piéton bi may ko mu jàll wante bu ko jaay doole nga daan da ngay daan doole tout ce qui est rouge est eh, dangereuse donc feu rouge égal stop il ne faut pas brûler les feux de signalisation Hol bar, minglay, signaler policier bi ak gendarme de leen de teg si yoon bi ngir de faire votre boulot donc respecter les règles de la circulation routière plus cligner pas de sous-sars, waa de bill du caagante teni de leen mil mille leen baax ñi di permis car tout n'est pas permis oto yi màgget dañ leen war a fouiller yi war derrière jaaraama yéen wakor corps des volontaires pour la prévention routière trop d'accidents sur la route

C'est le Tarek Show. Tarek Show. Sur le Brasserie. Pour la prévention routière, Yara Mayer. Alors, euh, Mr. Tough Connection, donc euh, premier son, qui est euh, Zan le Pro, mm. l'homme de G5 Universal. Mm. Mais dès que Zan, moi, moi, rappeur, je suis ngay mexe wala. wala day soob noonu. non soobul soobul dëgg la. Ah. soobul dëgg la parce que xam nga luy problème bi. Hmm. Euh, yàgg na si. ok yàgg na ci am na gëm-gëm. Euh, te euh, depuis loor mi ngi puus. Hmm. te mi ngi ci game bi ba léegi. est-ce que. noonu la fa demee. aka Dalu Ngaye. di hmm. moo tax uh-huh. son bi son bi nii ma def si featuring ak moom d'ailleurs mën nañu wax que si labelam lañ ko joobee. ci labelam lañ ko euh, joobee. foofu ngaay wala fii. non ngaay ngaay ngaay avant avant muy. ñëw jëfa waaw avant muy ñëw jëfa. am na solo solo ñu koy charage euh, léegi moom tekki na moom léegi moom kenn mënut ko teg bët kenn gisatu ko. non mais milieu bi la peut milieu milieu bi mu nekk la xam nga tamit ah. bon. noonu la fay demee milieu musique moo deme noonu. est-ce que mi ngi mel ni yow animation bi ngay def <laughs> des fois nit ñi mere la. Mhm. mais duñ comprendre que milieu bi moo demee noonu. moo demee noonu quoi waaw milieu bi moo demee noonu. waaw lu moom dëgg dafa tekki moom macha allah moom bokkul waaw moom gën na si quoi. non la ñuy ñaan loolu la ñuy ñaan loolu la tamit si milieu bi tamit. ñu am dara quoi au moins au moins ñu ni. que euh, euh, ji mi ngi si milieu bi. Hmm. am na ci lii wala am na si euh, laa ah, daal pour gën a encourager ñeneen ñi nga xam ñi ngi si Il y a un diable il faut que je me Papa Bilé. Mm. artiste chanteur. Mm. producteur ah. mm. mm-hmm. ok euh, Sanbi euh, la euh, copain copain mettre en relation avec parce que Papa Bilé ok after ma dem def ak ñom connection ak euh, Mamzik euh, après connaissance non lay jogué euh ma dem sen label ñu yaatal ma mhm. euh, nonu connection bi sax son bi normalement ñun ñet personne ñoko ko waroon OK Papa Bile mhm. Mamzik après ñu dem ba si biir nak affaire bi xaw tourner touti mhm. euh after après man ak Papa Bile ñu def son bi bon ma leen di remercier de passage parce que japp nañ ci japp nañ ci ay gars yu cool lañ gars yu nice lañ bon noonu la fa demee. noonu la fa demee quoi. Mm. Teuf Connection lan mooy Teuf Connection lu tax turu Teuf. parce comme par exemple euh, euh, souvent boo tuddee Moustapha. Mm-hmm. ñu naan Teuf explique mm-hmm. affaire dem noonu. Mm-hmm. mais comme ni nga ko waxee tam bu dee ci euh, game bi. mën nañu wax que ni dafa hmm? ok noonu lay noonu lay demee. ngay def <laughs> léegi lu tax connexion. Ah. Euh, groupe la wala yow kese la. Euh, connexion. Euh, connexion comme souvent bëgg ma doon nit bu nga xam ni dama fermé. Hmm. souvent tamit comme que tamit mën nañu wax que ni yàgg naa si game bi. est-ce que bi peut-être moom may ay connexion ay hmm. ouverture da nga koy xool déjà si trois sons yi. Hmm. mën nañu wax que ni ay connexion la parce que son bi. premier son bi maa ngi ko njëkk a def ngaay. au niveau de Mecca ak Zala Pro. deuxième bi ma ñëw ba DK. Euh, ak Papa Bile. Euh, mhm. Maam Zik euh, après ma delluwaat ak sound bu bees bi nga xam ni ñëwagul ak Seigneur Hardcore Thiès. loolu yëpp connexion moo ko kii pour bon comme ni ma la ko waxee rek doonu ma ko fermer. Mhm. pour gën a yaatal daal. am na solo. Mhm. instant bi ci lan nga nekk nga nekk di préparer benn produit wala. non instant bi tamit gën a imposé wu si game bi. ok gars yi xam ka ni Teuf Connection. mën na rap. muy fii waaw tamit euh, gën a def tamit ay euh, recherche tamit de telle sorte gars yi mu dégloo sànq ñu xam que ni. Euh, maa ngi ci game bi carrément. ok mais tamit maa ngi tam ci yeneen maa ngi maa ngi tam yeneen projet à part son yi ak yeneen ak yeneen. Mhm. noonu pour gën a yaatal game bi daal. au niveau de Ngaye nag mouvement bi foofu ba mu ngi yëngu maa ngi ñëw de. <laughs> loolu man nag loolu laa bëgg. Ah. man man si loolu laa lay woo instant bi ah, ah, si loolu lay pour nga gën a euh, ubbi affaire yi. est-ce que euh, tamit jeunes yi tamit il faut que tamit il faut que ñu gën a encourager euh, jeunes mm-hmm. parce que am na ay am na fay booy booy bëgg nañ rap. Mm-hmm. mais je crois que tamit ku leen gën a. ku leen gën a mm-hmm. parce que souvent dama seetlu que booy lu ëpp ay single la ñuy kii. kenn ku taxaw maanaam pour génne produit. Hmm. Euh, ñu dégg ñun comme peut être benn Sall Pro. Hmm. wala benn Teuf Connection. est ce que mos na am produit buy gën buy gën a ngaay quoi. non am na génne carrément produit am na am na Sall hmm. Pro mos na génne euh, produit. genre euh, mixtape wala genre. non waa mixtape génne woon na fii je crois ñaari mixtape. ok waa ak El Crazy El Crazy tamit moo génne génne woon na produit. ba mu ba commencé woon génn tamit def ay spectacle yeneen ak yeneen Dakar. noonu mais euh, depuis boobu léegi je crois tam beneen produit génn lu si ëpp gars ay single rek la ñuy génne la ñuy non il faut ñu ñëw ñu génne ay produits ba ay produits yu taxaw parce que mm. am na ay artistes yu taxaw yu nekk foofu mm. xam nga zan moom léegi moom bokkatul ngaay moom moom moom booy Dakar la <laughs> ah, boo dee damay ragal bu yàggee <laughs> xaw ma mooy loolu te man bëgguma bëgguma loolu dama bëgg mu ñëwaat dama koy draye rek waaw il faut mu delluwaat que moom mooy aka daalu ngaay mm. donc il faut mu dellu ngaay te ñun suñu bopp sax dañuy dellu ngaay ba pare ñëw xumbal foofu tëf kan nga big up kan nga remercier lan mooy mode mot de la fin. bon maa ngi euh, son bu tudd son bi nu mu featuring euh, Seigneur Hardcore Seigneur Hardcore Real Rap. Real Rap ak Real Rap di Real Rap la tudd bon maa ngi euh, remercier képp ku nga xam ne instant deglu Vibe Radio. à mm. travers euh, Tardec Show. Euh, di béggee tamit euh, fa ma jóge sama fief muy ngaay Mexe. Mm. ak ñi nga xam ni tamit bokk naak ñoom liggéey ah. waaw ah, ak ak nga xam ni bokk naak liggéey ci Ngaye FM. Mm-hmm. ak Assane moom ak mi nga xam ne accompagné na ma. ak euh, ak képp nga xam ni euh, à travers mon nom ah leen di bëggee di leen euh, ziar lu bëri. am na solo maa ngi soo sama papa Maguette Wade tamit xama rek waaw moom tamit moom ñëw jàpp si bagage <laughs> ak Touré cadre de gars yi. bu gars yëpp ah. mais mais mhm. mais lay demee noonu lay mhm. demee peut être gars nga xam ni comprendre gun projet boobu. parce que mhm. tamit ngaay yi mën nañu wax que ni. culturellement am na ay kangam yu fa nekk. donc gars yi carrefour culturel la. loolu moom saa yi kuy dem Ndar da ngay jaar Ngaay. Hmm. force kuy ñëw Dakar da ngay jaar. ngay la waaw. Hmm. am na ñuy dem Touba sax noonu la ñuy jaar. Hmm. waaw ba pare ku ne ci wàllum dal der cuir xam nga. waaw ñun label la quoi Daalu Ngaay. label la mais il faut tam ñu am ay structures yoo xam ni. Euh, de telle sorte que tamit. non la ñuy def sax. le terrain. waaw créé foofu ay structures ah, incha ah, xam nga def nga fi tëf. <laughs> ñëwaat nara tëfaat. ak yow tamay Serigne Hardcore jërëjëf ñu déglu sound bi merci beaucoup jaajëf et bon retour. 20h 21h c'est le Talrec Show avec Talrec sur Vibe Radio. blessed to be maa ngi dem to be represent sama kono sama coono nee leen tëf tëf tëf connect connect connection rabi sumo deret lu nekk ku mu ko bëgg a bàyyi loo foog nga kil ma non non non bàyyi leen ma direct ku me nar a me dor direct je suis votre prof de philo avec mon stylo Mava a des styles qui s'imposent sur le mic en donnant des coups comme Mike Tyson je fais souffrir mes ennemis avec mes rimes pourtant je n'habite pas au Rime République islamique de la Mauritanie le rap est ma go je commence en disant go goal marquer plus de buts avec le hip hop le for forever ñoo dëkk ruuba summi seen veste toog dañu sàkkatu ñoo di boole affiché foo lëmbal batata Mwen nou moun pou kou ye Nou kou do yon te boy Mwen nou moun pou ye Wala nou ben boy Nan nou me sen fest de ye do yon te boy Mwen nou moun pou ye Wala boy Now we for the boom And recognize the My fight on one check Clap on the good So forgive us wrong the lassie Ay fake ban flavor This is our legacy Kapu my Believe, believe, living what they gonna see Well, look out. Here the fucking area, tough and the Lord, we got to Well, back to Natay, I underground, and since you deal back at the eye, no back to the eye, don't want to tackle the chai, say you're the time. You might look in the home, bombard the faggot ass, and the killing, but you don't. Rob looking the je maakt lekker een hum. Bombardier, reggae, dance, lachen, wat je door. Wat de crew was in mijn quest, dan ben je zaken toe. Met de wijle affiche voor, dan ben je wat er toe. Met de mom, bokken op je, dan komt door je bal. Met de mom, bokken op je, wat laat ik aan de de crew was in mijn quest, dan ben je zaken toe. Met de wijle affiche voor, dan ben je wat er toe. Met de mom, bokken op je, dan komt door je bal. Met de mom, bokken op je, wat laat ik aan de God will carry up. Tough and the Lord, tough and the Lord, tough and the Lord, we got to carry up. Tough and the Lord, tough and the Lord, tough and the Lord, we got to carry up. Tough and the Lord, tough and the Lord, tough and the Lord, we got to carry up.